ñu ngi lay ñaan bala nga sétane suñu vidéo nga dal di abonné bés ko de notification bi pour vidéo bu dugg rek gën mën cee jot seen déformation bi leen di jox xibaar yu wër te wóor. Macky Sall ba mi yegg ci auto bi di wër dëkk bi yow saako ceeb bi naan ceeb bi seen bo boobu ceeb fan la prix bi fan la tolloon Macky Sall ba mi tok suukar fan la toll ak fi mu toll nii fi mu toll jën. jën moom jeun waxi nop jeun fiñ toni toll nii Macky Sall ba bi mu fa la nekkon fukk diram bo am juroom diram am jëm mais fi mu nii jën waxuma la dara waye da ngay ya boy 300 ma yéen jeun bu baax rek pour am ko témer sa boo ko jëndee boo tax nga am jeun bu baax léegi nenn jeun sa mëno togo gis lama waxon waxoon lay laay rek waxuma la dara waye ceeb bi mooy ba juus ndo di wër saako ceeb naan ceeb bi serna bobu boobu bi fa la tollu bobu mu naan wàññi leen ceeb bi boobu bi fa la tollu Macky liggéey na Macky ba mu fi tooga ba léegi wax ma ban société bu sénégalais moom ban usine <laughs> Macky Sall wóor <laughs> ba pare <laughs> ba mu fi tooga ba léegi amul benn société sénégalais boo xam ne fekkoon na ko fi mu ndóol mu ñëw yëkkati ko société sénégalais yi fekkoon yëpp dañoo xëy di gën a ndool ngeen kooku mi ngi liggéey Macky Sall président bi gën a perte perte de moom daal yaakaar naa daal président daal tabax rek tabax tabax moo gën a yomb suuf ci réew ci réew mi am na fi ciment wax na lépp fii la koy defee loolu moo gën a yomb ci ab président mbay mi Macky daal sëñ bi yàlla ko yàlla jëlee rek waaw te indi fi Ousmane Sall sa waxuma la dara waaye li rey ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll tey jii Macky benn bu defar Sénégal benn boo ko jëlee teg ko ci balance Macky Sall fukk yi mu defar boo boo ko jëlee teg ko ci balance benn bu bonam rek boo ko tegee balance bi res 14 morts 14 morts yoo xam ne fi mu toll ba léegi mun laa jàppal kenn ay vidéo yi leer nañ moo am leeral nañ ñuy tiire ñu ngi si ñoom 14 morts ay wax ñu naan ay Sonko wala yéen bëggul mu feeñ. manifestation guddi moo gën a garaaw ñëpp manifestation guddi te dara xew fi guddi laa guddi mooy bañ mooy bañ tëgg boole boobu tëgg nañ booli ba ba suñ ba suñ xol sedd déggu leen fa ma bitig ñu daj dégg leen fa ousaan buñ daj déggu leen fa lu yàqu déggu leen fi oto bi yàqu daa bu am dara am fi te manifestation guddi laa moo gën a garaaw manifestation yi heure buñ ko bàyyee mu jàll dara du fa xew waaw kay heure bu police yi génnee ay bakkande dee bu police yi génnee ay bakkande dee dafa ñaaw.